budget euh, bi soixante-dix millions rek xayma ndax yaakaar nañ am na dix-huit matchs de Coupe du Sénégal plus euh, entraînement yi déplacement des gënal sax daaw def nañ ci cinq stages à Diambars stage bi ci gën a tuuti trois ba quatre millions je crois que loolu lañ daan yoon lu ay chiffres ñu évoqué comptabilité salaire de joueur yi médical de transport yi soixante-dix millions ça part donc loolu ci loolu lañ ko jàpp on discute avec des partenaires

depuis six ba sept ans même même jour yi ñoo fi nekk léegi donc il faut am ah, da ngay xool da ngay xayma waat indi waat xale yooyu pour xale yooyu donc ñu ngi gëstuwaat bu baax a baax ci formation yi boo xoolee formation Sénégal dañu benn bal rek dañu benn moodu ñaar rek moo joxe xale yi mais bii on a mis des gens rek ñoo xam ne xam nañu seen liggéey sax mën nañu équipe senior jaar nañu équipe nationale jaar nañu ñu dénk leen suñuy xam dinañ leen jàppale comme ni ñu jàppale senior ndaxte suñu junior dem nañu un an deux ans un an renouvelable.